ah waa mais gars yi luy xeeñ foofu luy xeeñ foofu ah gars yi Sadio Mané su international Sénégal photom boobee ngeen gis noonu ne fële ca ambassade Arabie Saoudite bi nekk ca Dakar xel nag am na fu mu jëm salaamaaleykum amateur de foot nu nañ leen ko ci nekk seen tur ak seen sant suñu international sénégalais rek fotom muy commencé tas tey jii dafa demoon foofee ca ambassade Arabie Saoudite bi nekk foofee ca Dakar amoon foo doon waxtaan xaw ma nag lan lañ doon waxtaan ci biir ñenn ñu ngi naan transfert pour Arabie Saoudite ñi xaw ma ñu nag affaire de collaboration ou tout mais di leen leeral que ni Sadio Mané suñu international sénégalais yàggul dara ci mois yi weesu nii ak club bu arab Saoudite teg nañ pressing pour mu war faa mën a ñëw mais moom da doon privilégié ne Bayern Munich googu lay toog fa la bëgg a toog wéyal confirmé wan nañ ne moom joueur bu mag la mu dem nag rejoindre foofee ca ara ambassade Arabie Saoudite nekk Dakar. xaw ma nag la lañ fa doon def mais gis nañ ne jamono ji joueurs yi mag yi ñu ngi dem comme pas possible sur sur international sénégalais ah lu ne mën naa ne en tout cas daal xamuñu décision bu mu def nag ñu ànd ceeg moom rek te xam ne ne ku nekk ak sa choix quoi xamuñu nag exact lépp lu am rek ñuy xaar ma leen xaar ci commentaire yi nag lii xeeñ lan ngeen gis ba xam dem Arabie Saoudite la wala soit juste waxtaan collaboration wala dafay toog bayan lan ngeen gis ngeen bindal ma ko ci commentaire yi ak lépp lu mën di am nan ngeen ko gisee bu loolu weesoo dañuy continuer mercato bi ba léegi en continuité gis nañ ne kii di Victor Roque euh, day signé fële ci contrat ah, boo xam ne nii war na mën a dem ba deux mille vingt huit mu doon gone goo xam ne lépp mat na documents yeeg yëpp signature moo ci des officialisé mais Barça janvier moom la bëgg mu ñëw foofee ca club ba bàyyi ko mu wóyal ca club boobee nga xam ne fa la nekk di Atlético boobee ba bàyyi euh, xam ne ni vraiment moo nekk foofee ca Feyenoord ñu naan ko euh, Lutz Zarel euh, Geertruida moom nag jamono ji Leipzig nag danoo annoncé. annoncé woon que ni am na accord ak moom mais dafa démentir loolu ne accord amagul waaye ba léegi muy topp mbir gëm na ne war na ko mun a signé cent pour cent gëm na ko mu ngi noonee gone googee ñu ngi xaar mbir mi a lay demee ak naka la di leen leeral que ni kookee di euh, Daniel Fark doon coach ancien coach Norwich moom nag signé na foofee ca Leeds United ba deux mille vingt sept contrat bi sûrement. Euh, quatre la kookee di euh, Daniel Fark waaye di leen leeral que ni Inter ak David Frate euh, Fratesi daanaka mbiri antu na ba pare visite médicale signature officielle moom moo ci des mu jeex waaye yamaatuñu foofu Wolverhampton mu ci yoonu euh, signé kooki di Thiago euh, Thomas mbir yëpp leer document yeeg daanaka leer na mu ngi war a toll ci neuf millions d'euros euh, plus bonus mu ngi noonu war faa signé ba deux mille vingt huit gone kooki nga xam ne mu ngi am quinze ans ñu naan ko Mikey Moore nag moom nag prolongé na contrat ak Tottenham ba deux vingt six li waral Tottenham mën a jënd ak képp teg ay offre ak ñoom seen si la noonu la profité prolongé contrat am kookee nag Koglar euh, Suyunku nekk fa dem rejoindre Atlético doon jéem a def visite libre nag la fa war a signé défenseur central turc boobee nga xam ne euh, ba juin deux mille vingt sept mbiri daal euh, noonu la demee Granit Xhaka ak Bayer Leverkusen mbiri avancé na waaye dina leeral que ni Declan daal moo téye lépp William Saliba nag dafay prolongé contrat ak Arsenal ba 27 mu doon joueur boo xam ne nii daanaka ku am avenir la waaye ak central bu baax la waaye di leen leeral que ni Nathan Collins rejoindre na Brentford 23 millions d'euros la record transfert record dafa war a signé 6 ans dafa war a signé kookee di euh, Collins Lavia ba léegi Liverpool mu ngi ci ay tànkam ngir war koo mën a jënd di ko xëccoog Chelsea ak kookee di Arsenal Mason Mount nag c'est officiel. signé na foofee ca Manchester uh, United mu ngi noonee gars yi uh, loolu moo nekkoon xibaar nga xam ne jot naa rott ci ngoon gi leen xaar ci commentaire nan ngeen gisee Sadio Mané suñu a sénégalais képp koo xam ne nag abonné goo suñu chaîne YouTube bu ko taayee gars yi duggal suñu bio TikTok di nga gis logo YouTube bi nga bës ko mu yóbbu la directement chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche bu ko defee benn suñu vidéo dootu leen rawati yoon ci yeneen vidéo merci